dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu abu te leen ngir dara bañ leen raw wàllum xibaar daal dina bokk mbokk yi jëm rek nag ci li nga xamante ni moom la ñu fas yéene waxtaan ni Serigne Mboup ak ki nga xamante ne rek moo di Ousmane Sonko déterminé nañ nag ñoom ñaar fas yéene liggéey teg lépp lu jëmoon nag ci fitna premier ministre sénégalais bi ci lu jëm ci petites et moyennes entreprises gën ko xam nag ci PME Ousmane Sonko fukki fan ak benn ci weeru avril 2024 ndaje amoon na jotoon nañ ndaje bu takku diggante Ousmane Sonko ak ki nga xamante rek moo di Serigne Mboup fale ca primature mu nekk figure clé moom Serigne Mboup ci wàllum affaire fii ci Sénégal ginnaaw liggéeyam bu rafet ak njaayam moom Serigne bu bokk na ci ñi nga xamante ne yokku nañ koomu Sénégal seen rencontre boobee moom ak Ousmane Sonko marqué na nag a volonté goo xamante ne ñoom ñaar bëgg nañu daal bëgg nañu daal di booloo doon benn ngir mën a liggéey ci secteur privé waaye tamit ngir gën a gën a ñongal nag lu jëm ci wàllum koom fii ci Sénégal Serigne Boub nag moo nekk président bu Union national des chambres de commerce industrie ak agriculture fii ci Sénégal ñu gën ko xam INSIAS ci noonee président directeur général

créer emploi maanaam wutali ndaw yi ab xëy goo xamante ne dinañ ci mën a sukkandiku liggéey ci mën dimbal seen bopp ak seen i waajur loole nekk priorité sax boo xamante ni gouvernement bu yees bii daal lu ñu a am nag liggéey boo xamante di nga mën a dimbale sa bopp leneen ci xibaar bokk na ci rek nag Serigne Boub jot na souligner nag solo bi nga xamante ne chambre consulaire am na ko naka la ñu def rek ngir mën a daal di jàppaat jàppante waaye tamit liggéey chambre des ndaxte lu jëm ci entreprise yu ndaw mooy petites et moyennes entreprises ñooñu daanaka ci secteur formel la ñu nekk informel la ñu nekk daanaka ñoo gën a ëpp ci lu ñuy employé ay ndaw donc Ousmane Sonko daal fas yéene teg loxo ci kii di euh, ba Serigne Mboup joxante ñoom ñaar loxo ngir rek mën a liggéey donte nag politique wutale na leen tey joxante nañu loxo fas liggéey ngir rek Sénégal daal di jëm kanam kon Serigne Mboup bokk na ci ñi nga xamante ni wàllum koom fii ci Sénégal kenn du wetti li nga xamante ni dugal na ci loxoom moo de nag njàngam sax nag kenn du ko kenn mëna tudd Sénégal te tuddoo ko ci wàllum koom ak wàllum développement